maaleykum mbokk téléspectateur RTT TV ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp rawatina waa Thiès benn dëkk ñaari gaar ngeen ànd ak seen doomu ndey seen xarit seen doom seen jarbaat seen lépp muy DJ Am ku nekk xam ne ni ñu ngi ci Coupe d'Afrique bi nga xam ni Sénégal ci la war a dajanteeg Cap Vert mardi incha allahu rabbi ñëpp xam na ni sénégalais yi ah ay gaynde lan te ay jàmbaar lan léegi su ko defee damay ànd ak sama. caméraman rek ñu ànd ñu dugg ci biir ñu xool gars lan lañuy wax ci max bi sama caméraman topp ma. waaleykum sëñ bi. waaleykum salaam. ba yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax. yaa ngi bu baax a baax. ngi am jàmm bu baax a baax. waaw comme ni la ko waxee rek de instant yi dañoo ñëpp xam na ni ñu ngi ci coupe d' Afrique. waaw te ku ni coupe d' Afrique tudd Sénégal ah te ku ni ku fu ñu tuddee Sénégal xam ni ay gaynde lan ay jàmbaar lan ah te mën nañ li ñuy def surtout surtout nag huitième de finale bii ñu jëm ñëpp xam na ni bëgg nañ Sénégal andi ñu ndam li léegi yow lan moo denoon sa question ak sa xalaat ci lii bi match bi ñu jëm. waaw si match bi ñu jëm avant match yi wax damay wax ci match bii ñu passé ba pare. Hmm. parce que match bii ñu passé pour man. waa dëgg la suñ capitaine bi ñëw na mooy Koulibaly mais pour man warul woon ñëw rek dugub première mi-temps quoi parce que dafa jóge woon ci blessure avant ñëwaat ak corona bi noonu pour man Papa Abdou Cissé lu mu doon def jeu boobu mu doon jeu non baax na quoi dafa waroon kon ne ba première mi bi jeex après ñu soog a dugalaat kii mais match bi moom normal gis nañ ni sénégalais yi gaynde yi ñoo ngi wane ni ay gaynde leen macha allah Aliou Cissé lu muy def daal baax na moom cool na mais match bii di ñëw. ñun dañu dañu bëgg a gagné booy numéro 20 bi lu muy def baax na trop milieu terrain bi Nampalis na koy dugal booy boobu lu muy gée si milieu terrain bi dafa baax Nampalis Idrissa Gana Gueye Pa Alioune Ndiaye bu ko woon mooy ñun man gëm naa ni ñun Coupe d'Afrique dañ koy jël ndax vraiment Nampalis wóor na yàlla lu muy def si si milieu terrain bi amul quoi booy boobu dafay fubal Ismaïla Sarr manqué nañu en plus Ismaïla Sarr vraiment. manqué nañu. attaquant pointe nañuy dugalal Habib Diallo. kooku lu tege si bopp bi dugg na. nañ koy dugalal lillaay war a suuli premier mi-temps gaa nag match bi gisul mais match bii di ñëw lillaay war a suuli nañ ñu ko dugalal premier mi-temps boobu lu tege si bopp bi dugg na nañ ko tegalal premier mi-temps Sadio lu muy def baax na gis nañ ni day wàcc ba si terrain bi di rek loolu la gaynde di wone lu ñuy def fële nañ ko def fii ngir yàlla ak bi ñuy jël coupe d'Afrique bi seetlu ñoom dañu xam naa seetluñ lool mais ñun. équipe Sénégal ku mu tasel da koy bàyyi xel da koy sóoraale xoolal ñii luñ classé woon 4-4-2 ak défendre bu metti ligne ñoom fubalu ñu woon lu am dañ koy tulli nii lañ doon wut gis nañ ni gaynde ñu ngi fubal macha allah match bii di ñëw daal ñoo ngi leen di ñaanal ndam waaw di ko wax ne gars yi nañ gën a liggéey waar rek day ñëw parce que ay professionnels lañ yor ñun lu ñu yor fii ay joueurs Afrique ba mu daj kenn yore ko fi ñu ay professionnels yoo xam ne. dañuy partant seen club partant indiscutable la ñun ñoo yor meilleur joueur du monde man mun naa kaa wax meilleur joueur du monde man Sadio Mané ak Gana Gueye ñooy sama joueur Pape moom moom su ma naree wax si moom damay damay du ma ko mën a wax ndax damay bég si moom ndax gaynde gu muy wane macha allah Pape Abdou Cissé lu ngay joué rafet na trop waaw moom AS Pikine la jógee te man AS Pikine man dama bëgg AS Pikine nijaayam mooy coach Salam moom moo ma yor. xam na lu may wax bu baax keroog la ko jox jëndal xaw ma oto oto kontaan nañ si lool trop Pape du gaynde nga waaw. kon daal ñoo ko gisandoo ñoo ko déggandoo su waay gën na ñaax sénégalais pour ñu andi fi coupe bi na coupe bi na fi trop trop trop sax trop kon boog ngalawaay ngalawaay yéen suñuy gaynde andil leen ñu coupe bi ñu féetoo ko si jàmm ak salaam ndax ñëpp xam ni Sénégal dëkkum teraanga la te dëkku jàmm la. kon boog ñoo ko déggandoo dégg ngeen li si waaye rafet na trop rafet na trop sax kon su ko defee dañuy xuus demaat jëlaat suñ beneen naataango xool ànd ak moom ñu ànd ak suñ caméraman rek mu topp ñu ñu xoolaat keneen. gars yi comme ni ma leen ko waxee woon rek isa ñu ngi toogaat ak suñ beneen naataango salaamaaleykum sëñ bi. waaleykum salaam. loo nekk bàyyi ngi si jàmm. alhamdulilah ñoo ngi bu baax a sëñ bi ku nekk xam na ni isa yi ñu ngi ci coupe d' afrique te ku tudd coupe d' tudd Sénégal te Sénégal ñëpp xam ne ni football na ba agsi si huitième de finale léegi maanaam huitième de finale bii mu jëm yow lan mooy lan moo doon sa xalaat ah? ak lan nga tiit ci huitième de finale bii ñu nga xamante ni ci lañ jëm. waaw ñu ngi nuyu ñëpp euh, mooy que di leen wax ne gis nañu match yi fi jàll ni booy xoolee première match bi ak deuxième match bi am na changement waaw ah mooy que ne euh, ñu gën a ñaaxaat jour yi rek waaw di leen di leen wax ne sas nañ leen waaw jom ji nag moo ngi fi fulaak fayda gi waaw mooy que ne daal nañ gën a dolli rek te xam ne daal am na luñ ñu bàyyi seen ginnaaw te ñun ñoom lañ yaakaar waaw. waaw sas nañ leen daal waaw li ci des nag moom yàlla na yàlla mottali waaw ñu ngi leen ñaanal ñu dem ci jàmm waaw match bi ñu àggale ko comme ni ñu ko bëggee mooy njort gu rafet gi ñuy njort ci ñoom yàlla na ko suñ borom matalee loolu te mu mat incha allahu rabi te am nañ yaakaar bu baax a baax a baax am yaakaar bu baax a baax waaw. kon sama gars yi ñoo ko déggandoo dégg ngeen li sama waa ji wax kàddu yi rafet la te kàddu yu wér la te wóor kàddu yu rafet yu neex a dégg la kon su ko defee damay àndaat ak sama caméraman mu topp ma ñu ànd ak dem seetaan suñ beneen naataango. waaw sama gars yi comme ni ma leen ko waxee woon rek ñu ngi ak suñ beneen naataango suñ beneen jigéen bu baax bu bëgg Sénégal doon gaynde moom nee na gaynde la su doon góor day fubali soxna si ñu ngi lay siyaar bu baax. delloo siyaar. ba yaa ngi si jàmm. maa yaa ngi am jàmm baax. waaw maa ngi sant yàlla. ñëpp xam na ni ñu ngi ci Coupe d'Afrique. te Coupe d'Afrique ku ko tudd tudd Sénégal ñëpp xam na ni ay gaynde lan ay jàmbaar lan ah te mën na li ñuy def léegi te ñëpp xam na ni match yi passé yëpp Sénégal football nañ te instant ñu ngi ci huitième de finaal léegi loolu yow lan moo doonoon sax xalaat ak soo doon posé question lan lan lan ngay wax lan ngay wax yow. ah damay xam ni sénégalais yi dañoo war xam ni ñun am nañ yaakaar si ñoom parce que match moom nekkul la nga xam ne. c'est pas du tout facile parce que dafa metti ñu leen di ñaanal suñu demee rek ñu góorlu rek ba indi ko coupe lañ gën a soxla rek su ko defee rek Sénégal jëm ca kanam. léegi yow masam yi passé lim football neex na la wala. ah neex na ma kay damaa xam ne wàllum sport moo demee noonu rek parce que tey yow suba sa morom Sénégal bu demee ba def match nul dañuy dañ koy sante yàlla rek xam ne yàlla moo dogal lool mais xëy na peut suñu demee ba ay demi-finale finale yooyu yàlla mën naa dogal ñu gagné jël coupe bi wàllum sport moo demee noonu rek. kon yow yaa ngi ñaanal Sénégal ñu jël coupe bi quoi. waaw maa ngi ñaanal Sénégal mu jël coupe bi. waa ka Sénégal ah. nan nga nar a def. ah boobaa ñu jumelé rek. Ah. xam ni Sénégal moo gagné. kon sama gars yi ñoo ko déggandoo dégg ngeen sama jigéen ju baax ji li wax ah jàmbaar nga te gaynde nga kon su ko defee dañuy àndaat ak sama cameraman rek mu topp ma ñu xuusaat dem jëlaat keneen. jaajëfate ah sama gars ñi comme ni ma leen ko waxee woon rek ba tey ñu ngi taxawaat ak suñu beneen naataango ah muy waaju baax doon gaynde doon jàmbaar moom it di fan sa Sénégal salaamaaleykum sëñ maaleykum salaam ci loo nekk ba yaa ngi si jàmm waaw ñu bu baax kay daa mel ne laa fekk nga wéer sa oto nii de waaw gis nga de <laughs> loolu lu baax la <laughs> léegi ñëpp xam na ni instant ñu ngi ci Coupe d'Afrique te ku tudd Coupe d'Afrique tudd Sénégal tudd gaynde tudd jàmbaar te ñëpp xam na ni Sénégal instant mu ngi ci mu ngi jëm ci huitième de finale te huitième de finale moom ku ko tudd xam ne il faut nga rayante moom ba dee il faut nga rayante ba dee léegi yow lan moo doonoon sa xalaat ci match bii ñu jëm ah huitième de finale bii ñu jëm nga xamante ni rayante la ak ñàkkante ko. waaw loolu moom du yomb la mooy match yi a joué naaj na rafet na gars kontaan nañ. mais muy dernier match bi xamante ni équipe bu ndaw la dañ ko waroon dóor xam nga bu dul loolu yeneen équipe yu mag yi tamit dañuy mën a yab est-ce que mais gars yi joué na ñu soxlawuñu xam nañ gars yi mën nañ technique xam nañ ay pro lañ mais tamit match bi dañ ko waroon gagné ñu soxlawuñu technique instant ñun bii lañ soxla pour mën a gagné match bi xam nga mais ñun bu ñu fi nekkee di foo di technique yii nii yooyu gars yëpp xam nañ ñun gars yi ay pro lañ kon nañ gars yi ñun bii lañ soxla pour mën a avancer mën a jël suñu coupe du monde waaw loolu laa am lu may mën a léegi xam ñëpp xam na ni Sénégal coupe ba mu fi gëjee ñëw moom yàgg na. yàgg na trop. depuis 2002. waaw am na ñoo xam xamante sax judd nañ si ba léegi nii am nañ ay at yu bëri te mën nañoo fexe ba jël coupe du monde. Mm-hmm. waaw ñuy wax Aliou Cissé mu jàpp si rek mu gën a nice gars yi mun a jël coupe du monde tamit Sénégal jàpp si waaw loolu moom. kon sama gaa yi ñoo ko déggandoo su waaye li mu wax rafet na am na solo trop trop trop trop sax léegi su ko defee dañuy dem xuusaat dem xoolaat keneen rek. ok jaajëfal na la bu baax a baax a baax yàlla na sa jàmm yàgg. comme ni ma leen ko waxee woon rek ba tey ñu ngi taxawaat ak suñ beneen naataango suñ jigéen ju baax ju fonk jàngam bëgg jàngam fajar lay jug di jàngi soxna nag. maa ngi loo ne. ça va. yaa ngi si jàmm. waaw sant. yaa ngi am baax. waaw. li nga sensé baax xeeboo ko. waaye <laughs> ku la génn fii kan moo la sensé. xanaa Codé Diop moo fi jaar. moo fi jaar. Mhm. Oh, rafet na trop. léegi ñëpp xam na ni essant yi ñu ngi ci match Sénégal bi nga xam ne mooy huitième de finale bi ñu jëm Coupe d'Afrique mm. ah, te ku tudd Coupe d'Afrique tudd gaynde yi tudd lion yi tudd jàmbaar yi mm. te yéen jigéen ñi dégg naa yéen a daa kat seetaan fii match Sénégal moom Sénégal moom suy fubal du ngeen am jàmm léegi yow huitième de finale bii ñu jëm léegi yow lan mooy doonoon sa xalaat ak soo doon conseiller waa Sénégal lan nga leen di wax. ah ma gën leen a encourager rek. gën leen a ñaanal yaa ma gën a xam yàlla may leen ndam sa sa kanam. léegi ñëpp xam na ni Sénégal gëj na fee andi coupe. waaw loolu de moom am na dëgg. gëj na fee andi trop. léegi yow coupe bi su diggoon tey jii ah ba Sénégal gagné ko yow nan ngay def su boobaa. xam naa su boobaa di nga ah boobaa moom dinañu kontaan mooy waaw yaa ma a xam. Hmm. Mhm. masin machine passé yëpp seetaan nga ko. man. waaw am na ma seetaan am na ma seetaanu. Hmm. Mhm. gis nga daal Sénégal def na effort. waaw macha allah kay nañ continuer nii rek. léegi huitième de bi ñu gën koo yokk wala. waaw ñu gën a taxaw rek yaa ma gën a xam. Ah. Mm-hmm. kon sama gars ñi dégg ko li sama jigéen bu baax bi wax fonk jàngam bëgg jàngam ah lépp xam na ni lépp Sénégal la te Sénégal dëkkub teraanga la dëkkub jàmm la su ko defee dañuy xuusaat rek dem jëlaat suñ beneen naataango xoolaat ñeneen. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. comme ni ma leen ko waxee woon rek ba tey ngi taxawaat ak suñ beneen naataango. ah muy jàmbaar ju baax doon gaynde doon rappeur salaamaaleykum sëñ bi. maaleykum salaam maa lay fay. ñu ngi lay ziar bu baax. da ba yaa ngi si jàmm. jàmm bu baax. laa fekk ngay soog a waaj. waaw maa ngi waaw dañuy yi ñëpp xam na ni ñu ngi ci Coupe d'Afrique te ku tudd Coupe d'Afrique tudd Sénégal tudd gaynde tudd jàmbaar te ñëpp xam na ni senegal ñafe na ba àgg ci huitième de finale te huitième de finale bi. Cap Vert la war a am ah mu ngi war a fubar mardi incha allahu rabbi léegi yow lan moo doonoon sa xalaat ak lan nga gis li Sénégal jot a fubal ah ak huitième de finale bi nga xam ne ñàkkante la ah te il faut nga jafe ko il faut nga ñafe ko ba andi andi ñu ndam li fii. waaw pour l'instant nii moom huitième de finale bi da war a dóor parce que buñ la dóoree da ngay waaw te te tamit du baax. te ñun bu kaan bi commencé ba tey benn bii lañ amagum muy penalty te Sadio Mané moo ko dugal te ñun Sénégal si kaan bi dañoo jox benn favori boo xam ne nii mooy loolu daanaka Afrique sax ñoo ñoo suñu équipe moo si gën a mag daal xam nga mais ren équipe ndaw yëpp dañoo wane seen doole xam nga mooy loolu mais may may wax gars bu ñu xaadi rek nekk si kawam mooy loolu noonu noonu la fa demee quoi. léegi yow ñëpp xam na ni Sénégal gën nañ fi andi coupe moom gën na fee ñëw léegi yow ak ak match bii nii ñu jublu nii ah? yow lan nga bëgg lan nga bëgg ci ci match bi ah ak sa xel lan lay xalaat ci loolu. ñun kay lu ñuy xalaat mooy ñu indi ñu coupe bi quoi instant yii moom coupe bi il est temps mu ñëw Sénégal parce que équipe bu mag la te daanaka suñu joueur yëpp ay joueur yu mag lañ quoi. mais mun naa am tamit gars yi si corona bu ñu am suñ quelques jours yu corona woon fan yi xam naa moo moo ko waral quoi mais pour l'instant moom jot nañu indi coupe Sénégal parce que équipe bu mag lañ yor la ko defee. mais kon daal instant yii Aliou non Aliou Cissé moom deful dara problème bi si joueur yi la quoi man xaw ma ñoom feebar xaw mais problème bi du si Aliou Cissé parce que Aliou Cissé ko wax dara yaa ngi koy tooñ parce que Aliou mu ngi classé lu mu mën mu ngi sélectionné joueur bu baax yi mu ngi teg mais instant moom joueur ñoo si nekkagul normal quoi. kon sama gars ñi ñoo ko déggandoo dégg ngeen li sunu naataango bi wax ah ñëpp xam nañ li mu wax rafet na te kàddu yi neex a dégg la kàddu yi set te wóor la kon su ko defee dañuy xuusaat rek dam xoolaat suñu beneen naataango. mbokk téléspectateur RTT TV yi comme ni leen ko waxee woon rek ni leen ko waxee woon rek noonu la ko defee ànd nañoo yéen ah ci match Sénégal bi yi nga xam ne ci lañ nekk ah muy kaan bi ah ñëpp xam ne ni instant mu ngi ci huitième de te instant il faut mu ñafe ko ah, ñun comme liñ leen di wax rek tout le temps chaque jour li leen di wax ah dañuy ànd ak yéen lu Sénégal xew la lu mu mënti am lu mu mënti def dañuy ànd ak yéen taxawu ci ah commencement ba fin lu mu mënti def ñu ànd ci ak yéen léegi su ko defee dañuy àndaat ak yéen rek ci yeneen i tem ah ci yeneen i anam xam naa yooyu moom mooy gën a saft mooy gën a xumb mooy gën a xumb trop trop trop trop léegi su ko defee dañuy jiital sunu nuyoo sunu président Mamadou Seck naa ko kooku ñun ñoo ko safoo di ko namoo di ko tiitaroo ku nekk am nga idool nag ñun kooku mooy sunu idole kooku mooy sunu idole ba pare di gërëm tamit équipe technique bi waa RTT TV yëpp ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax a baax sëriñ Xaadim Soumaré directeur programme du la fàtte fenn yow yàlla na sa jàmm yàgg yàlla na sa jàmm yàgg bu baax a baax a baax a baax a baax a a baax maa ngi du ma fàtte tamit ah sama xarit sama doomu nday muy gajaga du ma la fàtte yàlla na sa jàmm yàgg yow it bu baax a baax a a baax nday du ma la fàtte yéen ñëpp yàlla na jàmm yàgg sama caméraman maam alaaji yow dama lay wax naa la loo camérawul ci réew mi neexul loo camérawul ci réew mi baaxul loo camérawul ci réew mi du nga ko teg yàlla sa jàmm yàgg kon léegi su ko defee dañuy àndaat ak yéen rek ci yeneen i émission ci yeneen i thème incha allahu rabbi ngeen ànd ak ñun ñu leen di bégal di leen safoo di leen namee